ñëw nañu TFM tout récemment ñu laaj leen foo leen dëkk ñu Moussa Nous ci fu mu jëm ñu ñu ngi koy télévision bi di sous forme de dédicace di leen nuyu découvrir na euh, commune bu mag bu tudd Kër Moussa la nekk gaay di ko découvrir loolu mooy wane communication ak culture ak sport mën naa yóbbu commune ñi nga ñoo commune bi ñu ngi koy doxal pour visibilité moo tax tey action yu mel nii culturelle yi am na solo parce que ëllëg Youssou Ndour mën na fi ñëw Waly Seck Omar Pène ak yeneen artistes yoo xam ne mën nañ fi ñëw te dëkk bu neex la moom ak Dakar ñoo bokk temps le temps est tout ba pare mu am forêt forêt forêt forêt manguier ay ay ay ditax ay mango fruitière maanaam le forêt fruitière na Kër Moussa fii doo fi gis ay golo doo gis bukki doo gis ay jaan ay mango ngay gis ay ditax ay pamplemousse ay yaasa ay ginaar ay pombiteer lépp am na ko. waaw Kër Moussa Info dafa seen wareef mooy tey communication bi yéen ko mën a yokk visibilité bi communiquer bu baax pour ñëpp mën a ñëw tourisme local. tourisme Kër Moussa seen loxo dañ ko teg pour ngeen ngun ko yokk positivement pour Moussa enfin nekk dëkk boo xam ne àdduna Sénégal ñëpp a koy xam.